du danga ma laaj léegi xam nga danga ma ne Yolande laaj bi ok non xam nga tey kenn ku nekk ak ligne conduite man RTS musuma fa teg sama tànk musuma fa toog man mii di waxee musuma toog RTS mhm. tey maa ngi nii Walfadjri damay wax moom moo ngi nii musul toog RTS moo ngi Walfadjri dafay wax kenn ku nekk ak sa ligne RTS est-ce que ubbil nañu ñi ba. non non non non dama ne la dama ne la barki Dembo Ndiaye lañ fi barki Dembo Ndiaye la ñu coupé canal fii. dama bu fi RTS nekkul. barki Dembo Ndiaye yeneen yeneen média ñoo ngi fii. barki Dembo Ndiaye la ñu coupé. dama ne la bu fi RTS nekkul yeneen média yaa ngi fii. wax ñàkk a wax xam nga xam nga moom da lay interpellé soo tontoo du nangoo dégg li ko sax. léegi léegi dafa arrêté xaw ma fu ma waxee. ok c'est-à-dire que yow dañu la tijjal buntu wax yëpp. c'est mais yaa ngi wax nit ñaa ngi déglu say xalaat yaa ngi am sa page Facebook réseaux sociaux yi ñëw na yaa ngi am nga foo waxee mais lan nga war a a wax est-ce que tey RTS euh, ma doo fi waxee rek dama war a saaga. non pas saaga saaga moom kenn kenn kenn. mais loolu mooy lan moo nee moom. day dama la posé question. bi nga gisee leaderu Pastef wax ne saaga yi. bu ma wax loolu ma waxul waaye sëñ bi waaw. da nga ne ah, na man dama ne que amuñu fu ñu waxee. moo tax ñuy sa. bu ma wax loolu ma waxul ñoom mauvaise yi saaga bokkul si ñoom. ba pare en même temps en live en direct en direct si télé bi Sénégalais yëpp dañuy déglu Ousmane Diagne nekk membre Pastef taxaw ne ñaari camp moo fi am mooy parti camp dëgg ak camp fen hmm. te ñoom jàpp nañ ñoom ñoo nekk si camp dëgg dëgg kon ku nekk képp ku nekk si camp dëgg yaa ngi si camp wu fen loolu lan la loolu mooy saaga yow tu as problème de jugement. sa désolé. <laughs> yow eh Ousmane Diagne yow mos. yow tu as problème de de jugement nga baal ma du ma la ko sax kii du ma la sax wax loolu. Mm-hmm. mais su ma nee diw da ngay fen du saaga. pourtant wax nga ma ko fi léegi parce que parce que euh, askan wi yaakaar na ñu ngi suivre. Mhm. te gis nga débat bi dama bëgg ñu gën ko kii daal. dafa war am auteur euh, waaw parce que parce que bëgg nañu jàll ci beneen pàcc bi mooy xalaatu ndaw ñi fii réew mi toll. mais mais aussi lii mënul jàll noonu. Mhm. parce que c'est très grave bu ñu demee ba jël accusation yooyu di ko teg ci ñenn ñi. Mhm. jëmee ci kilifa diine yi loolu aussi war nañ ko leeral fii ak ñuy sa ak ñenn ñooy saaga parce que mënuñu weddi saaga. Mhm. moi j'ai vu des profils yoo xamante ne dangay gis président Ousmane Sonko ay profil gis président Macky ñu koy def. Hmm? am nañ ci réseaux sociaux ñu waxtu ñi naan soxna Bator rek ñi naan bëri na ay yu bëri yoo xam te ne da koy dégg te man xam nga su koy soxna Bator ah mais dama koy dégg ñu naan soxna Bator ah, jaaxal na ma. léegi yooyu fan la jógee. non Mass dafa am loo xamante ni il faut ñu préciser ko sànq maa ngi koy wax peut-être xuusuñ ci bu baax nañ ma won bépp benn membre passé bu yor carte de membre bu taxaw saaga wala mu saaga kilifa diine. Hmm. nañ ma woon benn membre mafia kàcc-kàcc boo xam ni c'est il est formellement identifié comme man mu taxaw saaga kenn wala mu saaga Macky Sall wala mu saaga kilifa diine yi. Hmm. li ci des ay tappale kese la ak ay accusation wax naa ko fi sànq gis nga débat bi. dañ ko war a dañ dañ ko war a gën a moo am auteur comme li ma la wax mhm, sànq mhm. mbir mi du dàgg sante mhm. mbir mi du nekk toog bëgg accuser nit ki pour jéem a non non sénégalais yi dofuñu ils sont très intelligents. ñun li ñuy wax ni ñoom ñoo ñu ko gën a xam foofu wax na wax joo xamante mhm. parce que quand il dit ay axena axena ton ak mhm. ay ñeneen ñeneen ñu gis leen aussi ñoom ñu ñàkk war ma ci yenn kilifa yi aussi mais loolu loolu buñ buñ ne ci yéen lañ bokk aussi loolu war nañ ko xoolaat mais Akhenaton moom dama génneel par exemple quatre membres Akhenaton bu Pastef xam nga kenn ku ne mën ngaa toog fu la neex nga ni man diw mais li ngay def yow la engagé xam nga kañ la la la la boobu di engagé wu. Hmm. bu fekkee da nga ñëw yor fa poste wala nga yor carte de membre formellement identifié. ngay wax au nom bàyyi ma yeggale ngay wax au ngay wax au nom du parti. xoolal ngay ngay wax au Sonko. président Ousmane Sonko hmm. délégué kuy saaga. Hmm. délégué wul kuy waxuma la kuy ñàkk teggin sax ci plateau. bu ñu toogee j'espère que ñoom ñëpp. yàgg nga leen seetlu askan bi tamit ñu ngi seetaan amul mhm. kenn ku mës a toog ci plateau di wax wax ñàkk tegin bu ñu dugal ci débat boo xamante ni amul mhm. nañ wax dëgg rek te yàlla tax gis nga réseaux sociaux yi dafa nekk outil boo xamante ni gis nga jeunesse bi mhm. dañu am ay aspiration dañu gën a conscient ci ci les enjeux de l'heure mais parce que nga baal ma parce question bi c'est man man man sa man vraiment lu ma lu ma kii la euh, ñooñu di askanaloon ci bokk ci yéen est que duñ leen yàqal parce que ñoom aussi nga quoi ñin ñëpp aussi dañuy toog di gis. Mhm. ñuy wax di ñàkk war ma yenn kilifa yi. non moom laa lay wax dama ne ñooñu aussi est-ce que jotul ngeen a wax ne carrément. mais man ñu bokkuñ ci yéen. man wax naa la pare. Mhm. man nee naa la man sama bopp man kenn gisuma may saaga te santaane kenn muy saaga kenn waxuma la kilifa diine de. Mhm. diggante nit ak nit par exemple mag Ardo. saaga sax waruñu ko séq. parce que ay doomu aadama dañu war a joxante cër. ma loolu laa gëm. te képp ku ma déggal loolu laa la gëmloo. ok parce que nit ki tamit mën nga wax sa argument wax sa li nga war wax te doo saaga. Mhm. man musuma man je tape dur. Mhm. Mhm. loolu sax moom ma yóbbee tey ji sama sama sama sama sama tëj prison. je tape dur. te musuma jàdd yoon wala ma def lu illégal wala ma saaga moo tax bañ ma jàppee askanu Sénégal yëpp xam nañ dañ maa tooñ ndax defuma dara loo xamante ni yoon da koy bañ wala ngor da koy bañ wala diine da koy bañ dañuy jaay doole ñoom nag ci loolu lañ nekk. Mhm. ku ñuy wër nag doo doo prêter le flanc. Mhm. man dama ni saaga yi ñun sax arrangé wuñ ñun bu ñu ko doon def ñun arrangé wuñu. Mhm. parce day may argument ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo te amuñu argument. gis nga président Macky ak régime nañu tontu ci aspiration jeunesse bi. moo gën gis nga keroog événement mars ba mu amee ba pare. ba affaire yi diis ba mu xamante ni saison bi ngi yëngatu. dafa ni j'ai entendu je vous ai je vous ai loolu ba tey instant bi il fait la la la sourde oreille. mais na dégluwaat na na delloo xelam bu baax a baax. parce que jeunesse bi du jeunesse buy caaxaan jeunesse bi gis nga moom mi di wax ñoo ko gën a yeewu téeméeri junni yoon. jeunesse bi dañuy génn ay ay ay idées yoo xamante ne man mi sax xëy na xëy na aw ma ko. ba may ñëw si émission. Mhm. mais ay arguments yu extraordinaire lañ may envoyé pourtant waxuñu ma benn yoon saagaal Arona Gningue wala nga saaga Bassirou Ka mi nga war a a débattre. Mhm. man li ma gis ak li ma xam laa mën a jugé. sànq yaa ngi laaj euh, sama sœur Yolande Camara ci affaire Mimi Touré li mu wax ni gars yi dañu kii benn immeuble. Mhm. xam nga def fa Mimi seen bopp seen biir la bokkoon. yaa ngi dégg. man bu ko waxee dama koy jox crédit. te ba mu ko waxee léegi yaakaar naa indi luñ ko citation directe. kon man loolu dama si jàpp tey si ba mu dëgër gëm naa li Mimi Touré wax. parce que ñun dañu dañu subir les frais maa ngi wax sànq. Mhm. dañu nekk si réseaux sociaux gars yi dañu saaga di ñu menacer te mosuñu taxaw fenn wax ko. Mhm. chaque jour ñu saaga man mais dama ko teg de côté parce que man kenn du ma divertir. Mhm. mais encore une fois nañu wax ci gestion Macky Sall moom. bu fekkee li muy wax dëgg la ci moom. na wax ci injustice bi am ci dëkk bi. na wax ci manque d'emploi bi am ci dëkk bi. na wax ci sante bi nga xam ne nit ñi mënuñoo fexe ba fajoo. Ousmane ñoom pendant que pendant ce temps ñoom ñuy génn bitim réew di dem di faju ji. Mhm. mais waxal ci loolu. Mhm. waxal ci transparent dans la gestion des affaires publiques. Mhm. la moo tax kenn du loo ci dégg. sànq yaa ngi wax nga ni faruloo fenn loolu nga wax n'est-ce pas loolu nga wax sànq mais yow ci élection locale yi passé gis na ni Diop si nga doon nga doon nga doon nga doon jàppale Diop si fan la bokk. Sénégal yëpp xam nañ président Macky Sall lay jàppale donc gis nga encore une fois gis nga loolu ma du ma la ci jugé mais da ngay assumer ñu xam ni fii nga far. far ak dëgg dara ci. xam nga la moo bon mauvaise fois tey yow ngay def il faut être respectueux nga xala gis nga nit on est en démocratie ce genre gi nii moom la askanu Sénégal di bañ nit da ngay transparent da ngay leer man su ma nee président Ousmane Sonko la àndal le droit quel problème ça te pose su ma damay xeex mensonge quel problème ça te pose donc nañ respecté ta masse. Mhm. président Macky Sall na delloo si xelam gis nga li muy def nii yëpp pour jéem a def troisième mandat mais la constitution a été claire. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. foofu la yam pare nañ ci gis nga bu liggéeyoon Sénégal ba mu mel ni. ba mu mel ni ba mu mhm. du tere 2024 allah mu jëw fi amul droit bokk. te du bokk incha allah la mhm. mais mais mais d' abord. Euh, parce que foog ñu régulariser réseaux sociaux yi. ci lañ jëm gis naa jamono ji ku defoon benn publication ñu tey ko jàpp. gis nañu léegi ñoom ah, aussi ñu ngi taxaw di di di bëgg ku wax la naka sa doon noonu aussi ñu jël la. làq la jant bi. est-ce que aussi duñu mujj bu fekkee ci yéen lañ ko euh, yéen ko jëmale du mujj ci euh, seen membre yëpp ñu jàpp leen. waaw mais lo parce que ñu gis mooy chasse au sorcières rek képp ku àndul ak man dinaa fexe kii ko parce que li ñu bëgg rek mooy atteindre le président Ousmane Sonko moo tax jàpp nañ képp kuy défendre dëgg parce que Sénégal dama koy wax man leen xëy na président Ousmane Sonko kon moo nekk si dëgg parce que képp kuy défendre dëgg rek dañ lay askanale ci président Ousmane Sonko loolu dama droit la constitutionnellement consacré depuis très longtemps au Sénégal kenn ku ne am nga droit far fu la neex mais bu ñu joxantee cër ñu teg ko ci ay argument mhm. yaakaar naa ne askan bi rek moo ciy jariñu ok kon daal kon daal pour pour daaneel mhm. ñii yow mii jiite ma fee kàcc kàcc mhm. ñii saaga kilifa diine yi bokkuñ ci yéen man cër laa leen jox te gis nga kaay ma xam ne benn benn affaire Sénégal